ok Fourier Golf Connection bon maa ngi nii si diwaanu euh, Grand Yoff ñëw seet si BNB ah léegi dama ko ñëw seet si ci euh, couleur urbaine ok saa euh, Sénégal ñoo ngi si diwaanu xam naa moom si kanam tuuti dañuy waxtaan Teuf Connection la ok ñu ngi si diwaanu BNB ok mi ngi nekkee Grand Yoff ñu ngi ñëw tey tey seet ko ci couleur urbaine la ok for real mu lay demee BNB yu bàyyi la nga présenté wu. yow sër maa di la bëggee Teuf Connection yeah from fépp tout dans le monde yow yaa ngi la wala li nga def rafet trop te da nga maa seet si woon quoi yeah da nga rafet di kontaan bi dem ok muy bien dit bon ah. euh, émission couleur urbaine euh, version benn dinañ ko defar. bon ba tey ñu ñëw seet ci BND bon léegi dañ koy bàyyi mu présenté wu mu wax moo waral turu BND. yeah BND moom c'est en BND en anglais yeah B N D mooy Ndiaye mooy sama surnom di présenter my client from client alias Saint-Louis. yeah waaye ziar di leen béggee bu baax di kontaan am mbégte si teewaay bi nii parce que yaa ngi sigal ñëpp xam nga gis na nañu taxawaay bi gis nañu yaa ngi jàppale booy xam nga jóge dëkk ba dëkk ñëw seet si ma loolu xaw sa fay di présenté wu di présenté wu nag bien di for real from Grand Yoff alias Saint-Louis di waajal benn album fan yi na xawoon a defaraat mais dana nekk si jot bi ñu si dernier réglage xam nga xam naa ni moom bu génnee rek def soo gain parce que instant toll nii taal bi gars yi dañuy poème yaa am gën a xam te leen bu raaf. gars yi mën na samay sound na mën samay xam amour hip hop fan la la dikkale. waaw noonu rek dama ko xam nga bi may nekk booy di ànd ak ay yenn rappeurs yi frise dem ba dugg ma freestyle yi xam nga impro ma dem ba commencé dugg si gain yi xam nga. bon noonu lay demee ba tey euh, ñu ngi nii ci diwaanu BND euh, di Grand Yoff léegi yow euh, sa relation ak artistes yi nan la fa demee nan nga def ba imposé parce que tam c'est pas évident léegi mën a nga wala wala Dakar waaw ok yow nan nga def ba imposé fii nii fii Grand Yoff mooy xool concours mooy 2020 fi la woon bi xam nga boobu nekkul dem côté rapport ñoo fay dem quoi moo fa moom maa représenté deux mille vingt Saint-Louis xam nga yenn gars yi tamit xam nga fii moom loolu boo soo jóobalu naaj rek da ngay am lu naaj quoi parce que booy xool li gars yi dañoo yeewu réseaux sociaux yi day daw te instant bi image mooy lépp booy xool samay vidéo day dem samay clip day dem gars yi bëri am na numéro de pourquoi am ñu ma xam tamit xam nga yenn gars yi say concours yi daje xam nga yenn artistes yu mag yi fa la ñuy daje xam ñu xam ne booy bi naan la quoi te loolu mooy indi connaissance tamit. parce que nit ki boo xamulee rek mënoo jóg ak moom. ok léegi euh, bi nga dalee nekk ci euh, musique ba léegi euh, supposons say projet. say projet nan la fa demee. waaw projet yi ñu ngi gën a cool parce que ay moos la ñuy génnee muy dem échange ñu ngi ci benn waaj album boo xam ne mu ngi waaj a génn defoon naa ay clip mais xam nga fa nekk ci projet laa nekk ci projet mixtape am na ay sound yoo xam ne dama ko denc parce que ay sound yoo xam ne waajal la quoi xam nga affaire yi nga ñu lu sotti tamit lu fees bi day tuuru tamit quoi comprendre nga parce que instant booy xool càmbar càmbar yi rapport yi ndaw yi ñooy nekk di génne cent moom pare du ma leen classe nag quoi classe su ma leen mais damay wax rek li fi am quoi parce que affaire nekkul damay ñëw di génne tey génne suba génne gannaaw suba affaire yi day tëb ba mu ñor xam nga te ceeb foog tànk ñor doo ko yàq donc ceeb bi day ñor xomb ak koo lekkee di ci gis sa bopp. ok léegi yow ceeb bi jël benn mbay. ok léegi en tant que euh, artiste rappeur léegi. Euh, da nga bokk ci rappeurs yooyu nga xam ni euh, ñu ni euh, du ma def mbalax du def featuring ak mbalax man wala doo toog tendance est-ce que yow ci artistes yooyu nga bokk wala nekk nga artiste bu nga da nga ubbeeku wala. moom man moom lépp laay def mbalax ak tendance ak rab salsa ak lépp laay def affaire moom léegi ñoo nekk relation boo xam ne du ma ne lii du ma ko def alors lii parce que léegi booy xool suñu suñu maanaam génération moo toll foofu. ñun léegi rabu dund tamit dañuy rab ngir bëggal xol dañuy rab ngir seetal xolu gars yi. Hmm. xam nga mais mais léegi léegi gis na ay réel yu bari léegi presque mbalax lañuy def ku si mel ni ay iis. Hmm. ay ñeneen ak ñeneen sang yi ci ëpp. Hmm. Euh, musique musique bi ñuy def lu ci di gis nañ que ni jigéen ñi lu ci ëpp dañuy musique pour jigéen ñi. Ah. parce que seen majeure partie jigéen ñi ñoo koy reprendre. si ah. TikTok wala yeneen ak yeneen. est que yow ci bokk bokk nga si euh, bokk nga si ñooñu. man ku taal bi du góor war taal jigéen la taal xam nga parce que ñoom ñoo gën a am cosaan que gars yi si nawet bi noonu mais tamit rab ko mais est-ce que tamit loolu lu rey hip parce que xam nga bu njëkk boo génnee son euh, da ngay mu nekk CD euh, wala mu nekk euh, nga def ko carte mémoire wala yeneen ak yeneen nga jaay ko mais léegi gis naa de plus en plus artistes yi pour ñu gën a def seen promotion dañuy obligé. Euh, jël son yi jox ko jigéen ñi def ko snap wala yeneen ak yeneen loolu est-ce que dina pousser public bi ñu jënd euh, ñu jënd wala est-ce que du wàññi tamit popularité euh, popularité artiste bi de telle sorte que léegi comme artiste bi fu mu doon gënee kiiwee est-ce que loolu du rey loolu est-ce que du rey musique bi. non du rey booy xool bu njëkk ay cassette moo amoon ay CD léegi kale sax léegi amatul. Mm-hmm. léegi gars yi léegi album yi génnee dafa gratuit parce que gars yi ne ñu ngi fayal si YouTube bi mais léegi kenn jëndul kale ndax téléphone yi envoyé seen de Bluetooth moo set moo tax gars yi tantôt na jënd kale ay cassette tantôt na jënd ay CD xam nga moo tax léegi noonu ay centre yi moo tax gars yi léegi fekk ñu ngi obligé def bu jël sax da ngay yenn gars yi mais tamit boo xoolee abonné ñëpp solo quoi ñëpp tamit sens parce que man su ma génnoon chambre man tey jii ba moom vocal mais nag mais yow bu fekkee génn nga sànq nga jox ko jigéen ñu def ko snap. waaw ñoo ngi def snap est ce ñoom ñëppay jënd xam duñ jënd est ce ñoom dañuy jënd réellement dañuy jënd bu fekkee ne comme yow ko envoyé sa sound mu def sa snap est ce que ñooñu ñëpp dañuy dañuy dañuy obligé après jënd sa sound. non jënd ça dépend rek ça dépend rek parce que am na ñoo xam ne am yéene nga envoyé son ñu dugal la mais bokkul ak ñëpp quoi mais nag booy xool loolu noonu moo sonk ki parce que léegi booy soogantoor commencement bul xool xaalis quoi xoolal noo avancé parce que boo avancé rek am nga xaalis amul nit ñi ba pare nit ñi boo amee am nga que parce que booy xool nit ki am temps def sirab kooku maanaam mënoo fay tamit quoi lay fay ndax kooku bu ko dugalee que tey nit day def euh, sirab kenn ni seen ma kii li mu tudd mu la bii mu dugg bi parce que. en plus may na la benn abonné ñu ñeneen ñi ñeneen ñëpp comprendre kon maanaam loolu noonu maanaam dafa baax tamit si artiste dafa baax tamit. ok léegi yow sa répertoire euh, sound euh, ban sound moom nga bind mu leer na ni boobu moo la neex wala boobu ban sound nga bind mu leer na ni yow di see gis sa bopp. waaw non sound moom ni bii nii mu daal di bopp du ma ni parce que xam nga sound dafa xaw doy parce que looy caaxaane maanaam maanaam boobu maanaam loo xam ne da nga koy ñàkk fayda entre la yooyu ñooy génn soo bi gën a soo soo bi gën a nga ne non soo am bii nii saa bi dafa neex bu génnee deret boobu wala bu génnee maanaam non mën a stàq. Hmm. yooyu maanaam ñoo leen indil ay trompe quoi yi tax day génn kenn du ko fëlu wala kenn du ko dee wala mu naaj naaj. ok léegi boo xool léegi. léegi boo xool léegi saa yu jëm bëri yëpp ay saa yu caaxaan la. Hmm. léegi yow boo ma la bettoon nii man la euh, sa répertoire nga jëloon foog nga jox ko nga jox ko public bi benn sound. benn sound boo xam ne neex na la sa répertoire nga jox sa public bi nga xam da lay waaw bëri na na. waaw ca. yeah comme benn sound écouter yaa boobu ndax si géeru di teg lu leer doon xale yéen xel mot dama soxor kon waaye ma itte ki dàkk ma taxul xel la mot ay kanara laa ko sëkkal fa mu sukki saaf jël taam bi fa mot benn at lay am jot dina neex. mais nag événement bu amaat tourné seen game foofu ñu di foofu mu yëpp leen dans le ku si bëgg ba defal tàkku ne tàccu leen mu dem direct àdduma i drapeau comme que sekkal sa xel lu dalu sa xel dafay sa xel comme ni jell nee ma fi xel ba xel fa mu di daw xel lu bay bëri ci xar dafa am ne mu jarul laajte xam ko sa teel solo mu tig tig te maa pare bit bii dalaloo sa gel tàng ni xal taw jaaxal mën na si yur la teemata li ma ba su ma ne dóor yow dooma taal xam nga ni tàng ma tàngal sa geer bi te jaaruma tàng naa dóor la ay épique góor ba nga daw si sa maam nan jàkk naa du ni maa fi nekk may king mais ku raw daa fekk yaa ngir àjjana ku la ko dàq maa ko dàq soo fekkee sa tànkay laajtee vaccin bi ak yaa maa la gën a fëgg mën na jël sama pré ku ma wax dama fëri peut-être tap seen xuri li nga jàng doo ko tëri nekk seen ala buri man ak PD borom ñaari tur yooyu ñu ngi gis lu mu solo solo gën a yokk suñu kuri jàng ñi ma bëgg ngiri jël wiri wiri dina war a kiri te tamit gën a firi maa leen si kiri extrêmement sérieux rangel ko bi yokk noonu yokk jóob yi seen bët pacca si limo def ko jooni ma xaale yoon ne jàpp jaani mun na def mun na def di nga protect nga problème gën a nag di tiikoo mun na lu am sa xel organisme la ay pare di leen coow comme ni ay dërëm ne ma si ñu bañ taxul ñu bañ a la. ba tey ak euh, BND euh, bon euh, waxtaan moom jot nañoo wax si carrière am na la def ba imposé wu fii nii au niveau de Grand Yoff bon léegi dañuy wax sa projet. ak euh, tamit ba xam nekk ci label wala tamit képp ku nga xam ne bëgg na la jox nan lay def. bon actuellement moom BND for Eco euh, Saint-Louis BND SL SL mooy Saint-Louis TikTok bi BND SL Instagram BND SL Snap aussi euh, Facebook tamit aussi xam nga essentiel nag nekk ma si label nekk ma si label moom dëgg yàlla mais maa ngi prise ay sound maa ngi def si yenn studio yi comme ay Diaspora Art fa sound mais signé ko benn label am na ñu ma soxla mais lépp loo gis foog nga demal sa xel tamit lépp loo gis foog nga am lu ginnaaw ñu la conseil nga affaire yi ñëpp da ngay tëdd nga gis ay ginnaaw xam nga gars yi nga teg loxo gars a defal lii nii noonu la demee quoi waaw mais maa nii jafe moom fenn BNB Instagram BND Escale TikTok BND Escale Snapchat BND Escale fépp man boo message rek damay tontu neex mooy rapport ak damay jaay pere ak ñoom naa leen ne du ma tontu kii du ma tontu kii ku message rek damay tontu te ku ma message dama ah, yi moom maa ngi leen di ziar bi nga chaque jour ma gis et chaque jour ñu posté ma ngi amoon seen fay. xam nga maa ngi ñëpp di sàllam ñëpp. ñëwal jël sa xel bët bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët. bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xelu bët bu dee osé ngay jaay yow ñëwal jël sa xelu bët jëlal sa xelu bët yow ñëwal jël sa xelu bët rab bi ba may nekk booy bu ndaw laa ko daan foowe ba féegi yu daan daw pap gendi may woowe ay téemam ram di génn si man de gis nga ni muy tawe xiir gi rëcc jëm si yéen nigga gis nga ni ma leen koy cawe foog ma yëngal gësam li may tegew amoo njëgam yaa ngi forcé game di dem te yow doo dërëm bi benn di band la moytu ko te nga moytu dërëm moom de xam na ërëm di jaawale xaalis ak bërëm fekk bi nanka takkal sërëm moom la yelloo si paaram maa ngi def plein benn di mun a fexe ba wàcc baaram te réel niggas bu mu ci songu rek ma ruux la baaram kuy def def lu ba dugg si man niggas yow de daaram bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xelu bët bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xelu bët always dee oose ngay you yow ñëwal jël sa xel bët jëlal sa xel bët yow ñëwal jël sa xel bët bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee osé ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët jëlal sa xel bët yow ñëwal jël sa xel bët bëgg buzz moo tax sax instant ngi toog di posté fépp nga fës maa ni nga baal di wër di posté benn di sib na na nem bi ndaxte bandi la si game bi ma génn suru si teen bi ni laa rip ma génn leen sem woni lay këpp mën a ñoom tum und ak janax dama rab ba tey di bataay te pare guma li may def de maa ko tey ga dara pare juma def li may def gëm li ma gëm duma tëril gumba MC yi ma jotoon sib ñoom ñëpp laa cop tere guma damay xam li ma bëgg xam li may def te tere guma bàyyi ko fam si game bi li may def ni bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xelu bët bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xelu bët bu dee ose ngay jaay yow ñëwal jël sa sa xel bët yow ñëwal jël sa xel bët bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee osé ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët jëlal sa xel bët yow ñëwal jël sa xel bët yow dunu ma dara ne nga dunu ma dara bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee osé ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët dunu ma dara mu maye dara ni jot nu maye dara bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët yow bu dee weer ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee gañ sa ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee réel ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët bu dee ose ngay jaay yow ñëwal jël sa xel bët jëlal sa xel bët yow ñëwal jël sa xel bët